DKRTV.com et KhalimaSN.com vous présentent votre chronique d'actualité avec Sedina Sek. Sénégal jamono ji wutewut ak magget bu tëdd feebar foo laal mu ne uh, bu ñu social wàllum santé wàllum éducation xoolal ma mbirum politique fu mu toll jamono ji xastante saagante rek la ñu fi nekkee rawatina débat bu amoon bërki de njaay si benn télévision ndax sax dama ne usoul. askan amul dara loo ni servir lu dul débat boo xamante amul bopp amul genn gannaaw ba askanu Sénégal yépp masali kii di Suzanne Camara ay mbokkam war nañ ko woo ci ruq ndëppal ko ni kuy ab dof ab xamadi ba agsi yeboo dëpp wala sax lu ñu naan le pouvoir rend fou mu mel arrogance bu ñu fi jële woon ñu fi nekkoon ak insolence ñu fi nekkoon amoon ak impolitesse loolu mooy yot waa APR yi mu mel ni nag waa ji bés bu jugul ci lii bukki bu maatoon góor gi du ko fi bàyyi moom waa ñun ay débat yu pertinente la doon xaar si ñoom ay solution waaye dara xasante saagante kase mu mel ni faaletuñu askan wi lu leen ñu soxaloon rek mooy ñu falu ba tax fu ñu leen laajee lu ngeen fi def ba ngeen toogee léegi yu jug ndax rek manque ay argument yu ngeen mën a gëmloo nit ñi ni yéen a ci kawam dara au contraire kay gëmuloo gëmloo nit ñi ngeen di def di leen nelawloo waaye lu ci mën a xam rek ngeen war a xam ni Sénégal bi wute nag Sénégal bu demb 13 millions d'habitants yépp ñu ngi taxaw di leen xool yaa xayti malaaka yi wax leen lu ngeen mën moo gën nga nekk si di xasante di saagante sa jikko wuteelu wut jikkoom seen jikko dara taxaw si télévision di def ay accusation yoo amul benn firnde mu mel ni nag yoon ku mu mu am ndey la ak ku mu mu amul ndey ndax bu yoon doon am ci réew ma émission boobu doo ko génn te waa dikk xaaruñu la sa bun télé ba taxaw saaga ay ancien président taxaw saaga ay nit te tegoo ko fenn lu ñuy laaj sax mooy président naka lay mën a nangoo yenn xeetu nit ci biir partem waaye nag dégguñu ba ci sax seen commission de discipline boobu ñu taxawal seen parti bu yàggul yar yoo yaay Alioune Badara Cissé Bougane teg ko ci kaw Suzanne Camara lii rek di wër di findeel ni naar bu ndaw bi kat lu mu dégg wala lu mu wax ci xayma ba la ko déggee doy na waar mi mu réew maa yor nguur maa yor pouvoir maa yor doole maa yor justice saagaal mal aar la loolu rek la ñu mën a jàngee ci doxalinu Suzanne Camara bii ñoo ngi interpellé président de la république di interpellé premier ministre di interpellé procureur général lii dañoo war a jug taxaw wax ci ba ëllëg si biir nit bu taxawee si média dina xam neneen nu muy waxee ndax kat dama ne kaddu yii bàyyi Suzanne Camara war naa mën a bàyyi Bara Gaye ndax a président de la république ak nu ñu war a ormaale président de la république yëpp yaakaar naa ni benn la mu jot nag askan wi jub xoolaat seen bët bu baax ju taxaw temm xam ni ba léegi Sénégal lu woon ba léegi woon néegul nekk ci nguur lu la neex wax ku la neex saaga te dara du ci fekk loolu ba tey jeexagul avec cent ñu ne yow jàngalekat nga man de yàlla boo jàngal sama doom cim du ngeen rus sax nekk ci nguur seen parti di daggatoo fu ne xeexoo xiiroo ngaayoo rek ngeen fi nekkee mu mel ni da ngeen a fàtte lu tax ñu fal leen dama yaakaar nag bu dee parti libéral moom nii lay doxee man de bëgguma libéral gaa ñi maa Nena Dino yarlo mi yafu